mooy fii làmb bu ndaw la dara amul ay biscuit ay biscuit la ñuy saraxe ak ay ndox gis naa ko te làmb bu ndaw du ñëw heure yooyu ñëw. mais tey da ngaa sañse de. man waaw ah, tey moom fi mu toll nii delluwaat nga ay 35 ans 36 ans. bu ma ko soxla damaa jooy ba soxla. ndax la pour ma sol ma yëre. ay jërëjëf. dama amul sa numéro moo tax woowuma la. ji moom ma koy wax démb. waaw da ngaa war a ñëw caare jël si ma. waaw. dugal nañ recours nag ñu ngi xaar quoi. waaw mais tey da ngaa mel da ngaa sant. ay mooy loolu. dafa yàlla dafa yàlla. dafa yàlla ak. dégg nga si wàllu boy bi. dégg nga sa waay. agressé waat noonu lay def. loolu moom woo koo def. naa yàq sa def da nga bàyyi bu ma taxaw naa yàq. non du ma la bàyyi. ci loolee. mooy noonu la gàttal booy la. dëgg la góor waar booy bu am kóllëre mi ngi nii. bilaay zéro zéro problème bilaay wallahi wa taala. bilaay yow amiin amiin. am na ci booy yoo xam ne dañoo kuul. am solo waaw jàppee jàpp nit. waaw kii ci la bokk. amul ragal yow après dafa ma sin rek. waaw amul ragal incha allah. salaamaaleykum. allo. allo. allo. sant bu baax a baax. ma ko may wax ma ko ma. le 19 waaw dama la war a wax bilaay man la man damaa toog affaire rek. le 19 la. kan mooy bëre spécial bi. ñaa kii. Georges Bouss ak euh, Papa Laye. bay ko leen booy ñaaw. kii moom tey laa ko noonu démb laa ko noonu jëli mooy leen signature rëbb. rëbb waaw bëggoon jëli gaa kii. mais suba xam naa naa ko def ci booy. waaw rëbb day am signature jël waaw. après nag may xoolal spécial yi. si Ali. waaw nga leen xoolal jox leen ma mais te leen plateau balaa nga ñëw ci biir semaine boobu nekk. waaw defal ma loolu. loolu kay ci yow lay des ah maa ngi ñëw léegi ñu waxtaan Thank you. Marle 2 ak booy Waalo xale yaa ngi ci digg géew bi ñoo ngay lewaatoo Marle 2 mbokk yi moo ngem boo ngembul li takk moosu bu xonk bi ci bopp bi Boy Waalo ngi topp ci ci kawam Boy Waalo reculé na léegi Marle 2 ak booy Waalo Boy Waalo koy xool ci biir bët waaye kii est-ce que Waalo la <laughs> eh booy waaloog maar la de booy waal daa mel ni da ko bëgg a jàpp la cokkaas na léegi maar la cokkaas na la de booy waalo booy waalo ngi dox ci kawam door na ko fekk da ko doomu daanu waaw waaw waaw waalo door na ko mu daanu booy waalo door na maar mu daanu da ko dóor fekkil dox ci kawam sas na ko mu wàcc maar la de xamul li xew ana ay ko jël si Marle 2 ana ay mbokkam jëlal ma Marle 2 dafa jaaxle xamul lu xew ba tey ma ngay daw ma ngay daw jàpp leen ci de jàpp leen ci Marle ngay daw di dem booy waalo nga koy xool bàyyi leen ko nee na ngeen bàyyi ko nee na ngeen bàyyi ko kaawo baaxul kaawo baaxul kaay fii